uh, two more migrant boats from North Africa arrived in Italy over the weekend. The boats landed on the Sicilian island of Lampedusa, while the island's reception facility is suffering from overpopulation. Our Makalo takes a look at how the residents of the Lampedusa reacted to the arrival of the new migrants amidst moments after the arrival of the latest boat. The migrants were tested before they were transferred to the island's migrant facility, where over 750 migrants are currently hosted, while the newly arrived refugees waited to be transferred. About 60 Lampedusa locals held a demonstration in front of the town hall. The protest arose after three African men left the reception center for a walk a sight that upset some citizens who were frustrated that the newcomers were not abiding by quarantine rules. Salvato Matelo, the mayor of Lampedusa, has this to say. There is no longer space to put people in facilities. Therefore, therefore, we need to hurry up the transfers, after which we will wait for this boat that is arriving at Lampedusa and to completely clear out the facilities so we can have the chance to completely clean up properly because honestly, it is under severe pressure right now. Nearly 100 migrants are expected to be transferred from the reception facility in the Embriacola area. More than 700 migrants will have to remain in the overpopulated center. They will later be transferred at the migrant facility. Mayor Matelo states that the condition is clear. He added that they will have to collaborate with Tunisian Republic to stop the boats from leaving to Lampedusa. The situation is clear. Either we get collaboration from the Tunisian government in the sense that they start to block these boats directly before they depart. Otherwise, the arrivals will continue at this rate for the whole summer. Lampedusa is Italy's island, closer to Tunisia more than Sicily. With the emergence of COVID-19 pandemic, physical distancing has become a requirement for every public facility. For iAfrica TV News, Aomakalu. aja mu ngi noonu Awa Makalo jërëjëf ci report bi am na solo su ko defee euh, quickly ñu waxati ci euh, comme ni nga ko waxee rek bi tamit nekkul lu bees dafa mel ni euh, comme ni ñu doon waxee rek ak coronavirus xëy na nag corona moom mooy gën moo gën a garaaw ay biram waaye bii tamit jël na ay bakkan yu bari ci ay ndaw ci ay of ci ay nit yi nga xamante ne dañooy use Mediterranean bi daal di dem Europe ñii tamit North Africa lañ jógee daal di dem buñ yegsee nag. Euh, li li li li métti yi ba ñu génn euh, mooy waa ay ay lamba résidence Lambadusa ñaxtu mooy euh, ñenn ci ñi nga xamante ne bu ñu yegsee dañ dal di xatt sarta yi nga xamante ne yooyu leen teg quarantine leen ñu génn ci biti di dox ñoom nag ñu génn ñaxtu loolu waaye leen loolu ñoom daf leen daf leen naxari waaye mayor bi tamit mu ngay wone ne situation bi fu mu nekk ni nit ñi bari nañ ba place bi ñu leen teg. Euh, over dafa over overcrowded nit ñi bari nañ situation bi foog ñu jàppalante ak Tunisia bu dul loolu moom yëf yi day continuer nit ñi di ñëw rek te bu boobaa beneen situation mun naa mun na mun naa am euh, ban jàngat nga ci nga ci mun a am julde situation bi euh, you know lii moom. beneen beneen na waar man dama tënnee sa des euh, bagway yi dañ ko paagaangum because of coronavirus. waaw mais I think recently sax ma ne man géej naa dégg mbiri corona euh, bagway bi and others time boo every time nga dégg bagway boat bi dem na kala dafa capsize and all that but now you don't hear all that is maybe another improvement. Mm. Euh, on the side of COVID mm. you know waaye ma gis ne lii am mu nekk loo xam ne dafa time bi man kuy embark on because yaa ngi risk sa life twice one the chances of yow pour nga am infection bi is very high two you know the journey also is very risky nga teg si loolu noonu stress boobu noonu and all that nga nar ko dugal loolu loolu I think nit ñi fu mu nekk nii dëgg is very hard everywhere léegi fu mu nekk nii moom nekkul Europe nekkul Africa everywhere suñu economies yi are stagnant mm-hmm. is both, you know, the, the, that is, you know, around the globe. So you so you giving and. kii dafa xaat nga dem si beneen country boobu mu gën a xaat boobu noonu because ñu ngi wax ne sax fu mu nekk nii gaa ñu ngi am overcrowded and yooyu noonu te yow foofu noonu boo deen booy jox gaay it's more than you know loo xam ne daal loolu lañ fa fekka because ñii suñ génnee dëgg la dañ woor yi dañ share their concern ñii suñ génnee yàlla xam kan ak kan moo am virus bi mm-hmm. léegi yow soo génnee nga lo loolu si seen ah, yeneen citizens su fa nekk yow yaa ngi increase the burden for those countries you are also country because soo delluwaatee si ñoom am na ñoo xam ne si bari especially in the case of Gambia dañ dee am fi ñoo bari yoo xam ne dañ dee escape quarantine so ñooñu ñooñu façon fa yow soo foolee in those trap ñoo xam ne dañ dee escape quarantine facilities yi nga dem nga méngoo ak ñeneen yi nga dafa gën a law mm. te cases yi serious local transmission bi dafa ëppa te léegi doo dee even xam léegi daal te te Italie ah. moom euh, mbas mi lum fa def foog naa ne serious euh, buñ bugga de jël beneen slight chance of ah, um, you because euh, I think uh, at one time they were one of the highest you know America Brazil ak Italy yooyu they were one of the highest yoo xam ne death toll dafa bari foofu noonu so uh, léegi daal ñu ngi try pour somehow contain the situation there foogu ma ne dinañ uh, any chance. exactly duñ bëgg a may kenn mu mu fayee fii ba mu uh, yéen judduwaat foofu bu baax xëy na ba léegi sax. ñu ngi ragalaat ndax situation bi du ceeñaat Europe euh, beneen wave mu ñëwaat second wave yëf yi gën a doyaat waar te xëy na loolu la ñëw mooy tan moo tax gars yi ñoo génn di ñaxtu moon njàng euh, ban jàngat nga cee def situation bi tamit euh, nit ñi yaa ngi dem of course ak covid bi yëpp ak mbas mi nu mel comme jul denum ko waxee foogoon nañ ne situation bi na tax ñu bari xëy na xalaataat xam ne fu mu nekk nii you know yëpp ay fu you know aduna si fu ne yëpp yëpp ay métti foo dem rek eh, daanaka yëf yi benn la tey xëj na tamit ñuy jàpp ne bu ñu demee jamono ji am kayit si lay yomba because ñu ngi doon joxe ay kayit ay yu mel noonu eh, est-ce que foog nga tamit xëj na loolu moo nekk di pousse nit ñi ba léegi ñuy dem. waaw dem moom corona bi mënu si dara parce que corona bi moom dafa ñëw daf du la tere yow nga lekk nga naan du tere yow da nga am soxla mënul koo méttee ba loolu yëpp doo ko doo ko def. problème bi mooy ne corona bi warul tax ñu ne yàcc na ya sax waaye africain dem seen ñun africain si ñoo war a trayal suñu ndaw yi bon nguuru Afrique bu nekk rek daanaka ña fa nekk ñooy séddoo alali réew mi yëpp pàccoo ko ban nguuru Afrique nga mu am planal pour ndaw parce que dem ñi yëpp ndaw leen te africain leen waaye dañ leen fàtte si seen réew yi palaanuñ leen dara lu nga xam ne dinañ ko mën a jàpp liggéey ko ba toog fa this is the problem because dañ fi nekk di tok rek di di taxawaalu. di def lene mbass mi da loolu la feeñal sax. loolu la feñal so this is why. ba mhm. ci fekkone ku ci nekk fu nga tok fu rew mu nga waxuñ ne mun ñepp mun nañ am waaye war nañ gis ak liis lo xamne ni ndaw ñu bari ñu ngi fay daan seen doole ay si ay bérébi kay yu bari bari bari ndaw ñu ngi fay daan seen doole ba doo gis in fact luñ am ñaar ñetti ci dogu be kenn nuko gayru waxe euh di waxee euh, kenn lupp so naka la naka la dëkk yooyu di demee. loolu moom keneen ni jël lu lex benn lex. fukki seddoo eel. waaw loolu moom. soo naka la moo demee soo décidé ab lii mooy problème yi Afrique ak suñu dëkk yi si si bi fii nii. loolu moom feeawut. million suñu doy nii yëpp lan leen si ubbil ndaw ñi yan projet leen ubbi pour ndaw ñi pour ndaw ñi liggéey toog si seen dëkk bi yan la soo lañ bëgg ñun ñu ne fii rek di enu ay saako ak nangam nangam. gars ñu ne projet mënul nekk dañu war a am programme pour ndaw ñi ndaw ñi mën a toog seen dëkk yi liggéey baña dem di dem lifin du way nga fek lolu amul najel gi dina jël walam ñi yalla tuddu ñu ag dañen dem ah. te corona bi mënu ci dara corona bi mom foog nga outil lo lek di nga lo nan bu ko lolu daf ko laf la ko fekkee lolu mom mënul la koy téré ifin soy dem mbeukante mom sa way di nga lo lek yak sa njaboot di nga lo nan di nga ut nga liggéey mënul ñaka ko lolu mo la amee résistance mënul ñaka way dafa dafa jot nak li rek war nañu jàngal lu bari african système baye xel sen ndaw yu rewi mm-hmm. mënul la wax na dañen am liggéey bon na nen create som am bu ñep am bu ko way fi da nga war fi ben kër naka kenn ni mo am responsabilité ñi ci dess yëpp amuñ liggéey te dañ leen dee xass ci lolu sa plus way yow tam travail wala dara pour nit ñi mu see liggéey wa mu mu nekk situation bu bu jara a xel comme noko ko fokk na naa ne euh, loolu tamit yag nañ ci wax yag nañ ci wax bu baax waaye daal euh, ndaw yi ba légui am na ñi nga xamante euh, toogaay bi dal gisuñ ne mom moy solution bi so dem rek am na ñu doon wax rek barsa wala barsaq loolu xewoon na fi ci jamono waaye sant yàlla wàññeeku na bu baax ah, waaye nag ñu am yaakaar ne situation bi nu moo demee nii comme moo ñu ko waxee mbas mi moom Covid 19 wala coronavirus noo ko waxee rek jàngal na Afrique wala suñu réew euh, yu bëri ci li nga xamante ne mooy si taxawaay bi ak ci toogaay surtout nguur yi rek foog naa ne am na jàngat wa ci bu ci bu ci war a mën a am.